lañ tëraloon nag jégal jébbal ko ministère éducation national moo doon suñ teewaay tey la taxoon ñu doon wax lan la mooy ne njàngale ka nga xamante ne moom mooy jàngale taxaw jàng xale bi nga xamante ne moo war a jàng xam-xam bi ban xam-xam la ñuy wax muy mathématique mais ban niveau fa mu toll ci njàng ma ñu ne njàng ma gën a néew mooy xale bu ndaw bi la mooy jàng bu ci njëkk mooy bu ñu wax njàng ak njàngale la ñuy njëkk xool mooy kay jàngale at la mooy jàngale at nam koy jàngale ñu ne kay jàngale kand ñu ne ki nga xamante ne moom mooy jàngale ci école élémentaire bi ci xale daara yu gën a ndaw yi ndax nañ ko tàggatee at nañ ko jëlee muy jàngale jaar na yoon ñu ne ko kat am na la ca jaar yoon waaye am na loo xam ne war nañ koy jubbanti bañ seetee nañ ko war a jëlee at la nga xamante ne moom lañ ko jàngal ñu ne ko boo demee ba ca daara ji di nga nooy jàngalee te gunu yu ndaw lañ yore ay tuut tànk noo leen di jàngale ñu ne kat sak kalima bi ngay wax làmmiñ wu ngay bu fekkente ne màccoo ko mu leer xale ba la mu cay dégg mën nay ñagas te bu ñagasee xëy na lam ca waroon a dégg ci mathématique du leer kon fexeel nga tàggat sa làmmiñ ba loola mën a leer ci xale bi danga ko tàggat ci tubaab waaye nag danga ko tàggat tamit ci la nga xamante ne moom la xale bi nàmp loolu nekk lu gën a am solo ci li nga xamante ne mooy mesure yi waaye nag yemuñ ci mu de dañ seetlu ne ci réew mi bëri na waxtu yoo xam ne dañ ko waroon a jàng xale yi jànguñu ko loolu bu fekkente ne dafa am ci réew mën nay nasaxal lu baree baree bari ñu ne kon nañ góor góorlu ba waxtu yi nga xamante ne dañ ko waroon a jàng ñu jàng ko te duñ téye xale bi jàngalekat ba newu fa wala jàngalekat yi ñëw xale yi newuñ fa ñu fexe ba loolu wàññeeku bu mën mënta dañ tamit ñu ne waaw loolu de moom du doy ndax yéen lii ngeen di jàngale muy mathématique li nga xamante ne moom lañ ci moom lañ cee dëxëñ dafa mel ni dafa kawe ba nit ki bu nekkee fële ci àll ba la mooy jàngale mën nay bañ a leer ci boppam te loolu ñu ciy tàggat jàngalekat bi mais aussi ña nga xamante ne ñoo nekk ca gox ba ñu seet ko saytu ko ba loolu ñu mën koy def ca la mooy jàngale fu xale bi waroon na def fu ñu waroon def ñeen fukk bu fa def ñaar téeméer ndax su booba classe ba dana bari nit bari nit bu yem ni la fa war nit ko waroon a jàngal du ko jàngale kon ñu fexe ba effectif yi classe ba nekk la fa waroon a nekk jàng jàngukaay bu nekk la fa waroon nekk yem ak la fa ne mu bañ a ëpp loo xamante ne dafa dëpp dayoo kon nag comme loo li nga xamante ne dañ ci tënk dafa bari ay xam ne ni lii dañ koo jagal ki nga xamante ne mooy ministre éducation nationale te am nañ ci yaakaar bu rëy ne la nga xam ne mooy sabab bi bien que bañ koy def xaw naa yàgg tuuti fu mu nekk nii ba ñuy def analyse xëy na mën nay am ñaari at wala ñett wante boo seeg ba ko saytoo ba ca biir boo ko toggaatee tey daanaka la bëri mën na ci ay ñoraat ba mën nga koy tegaatal nit kon loolu lañ yaakaar ne ministère éducation nationale dina ko def seet li nga xamante ne moo ci ëpp solo yépp mu mën koy jël dëxañ ko nga xamante ne dana mën a jëriñ réew mi mu mën ñu yekkali ba lañ lañ ca mëbitoon xëy na ñu am ci loo xamante ne dana raw suñ yortu